eh oui. Sénégal tamit am na géej. Hmm? Sénégal y a la mer Sénégal am na géej. y la mer. Sénégal. En catalan, il y la ah, ah, mer. wolof, ah, écoute-moi, en wolof. Tu dis Sénégal. Sénégal. Il y a la Am na géej. y'a la mer am na. am na. géej. géej c'est la mer. ah géej waaw wolof waaye géej c'est la mer. Ah, ah, c'est très joli. Ah, c'est la mer. comme vous la mer en wolof langage sénégalais c'est la mer. l'autre jour je suis venue dîner. oui et j'ai connu damay mën mu yóbbaale. <laughs> waaw léegi nañ dugg. mais comment vous voyez mon tenue là. Ah, très, très joli. J'adore les tenues. Ah bon? Oh, j'adore. Ah. J'adore. <laughs> Les femmes avec toutes les couleurs. Oh, c'est joli. Ayow, yow doxal nag yow ayow. ngi dëkk ndox mi yow. ta mère et je vais mourir. La entraña de Trump, de man ma police lu ma jël si. ana aji waay aji filmé lii. Oh. mais c'est du jamais vu. non mais merci beaucoup. très content. ah foofa ko invité. ndax foofa ngay laal waaw foofa ku naan. oui. il n'y a pas de costume pour moi. si si. oui. donc je vais chercher mon tailleur là. oui. Attends. pour toi. pour toi. yaram bi day daw de. taille 40. ñëw ba ci ma xool li nga yor. ñëw ba fii. wàcc nii anse yi c'est des anse là léegi oui oui yow say anse baax na ma xool xott daal yi attends mu xool fais comme ça la tey waa faire ni ma xool li nga yor wàcc nii waaw non non c'est c'est bien on va vous faire une très belle tenue comme moi T'as vu, moi Oui, oui. Ah oui, oui, ah, c'est très joli. Très joli. Beaucoup de couleurs. Non, je suis très content.